لله رب العالمين نيغي سانت يالا دي جولي تي انت يالا محمد صلى الله عليه وسلم تي بسم ماغ بي دي الخميس تبارك الله ني ورا تيلو غودي اجما نيغي لين دي نيو في تي تيلي داك مدينة ف تبارك الله تي في ما شاء الله تي كير اجا كيا اي دار مبوب بو شيخ سيدي ابو بكر سي رضي الله تعالى تاي نك ميرمي على داومي لول اي كليفه يو ماغ جوغي با حضره با تبارك الله نيو تيو تي بسبي بي ñu gën ci ràññee sëriñ Abdoul Aziz Doucouré bu sëriñ Abdou Al Amin yàlla na fi yàgg téer ñëpp rafetlu taxawaayam muy koo xam ne macha allah boo déggee muy wax fa tabaarakallaa doo tiit ndax léeg nga dégg nit di wax mais da ngay tiit ndax ci biir wax ji rek dina wax lu blessé nit te gor su ne war nga moytu di wax ci mbooloo di blessé ay nit moom li ñu seetlu ci waxam mooy ku woddu kàddoom la kàddu gu nu day defar pénc mais kàddu gu ñu mur yi day day day tas pénc ndax boo waxee rek fa tabaarakallaahu yàq lu bëri yàlla yàlla dolli ko sutura mu ñëw ci soppeem loo xam ni wallaahi mënul ne lu metti la tey mu jige Tiwaawan ci xadara bi ñëw fii ndax xam nañu ni yu mel nii dañ ko war di taxaw foofu ak Thiès ak ci raison bi waaye mu bàyyi lépp ngir cofeel ak kóllëre vraiment ayaa kiyaa loo jàppoon sëñ Abdou Doucouré man waxuma man de mais loo jàppoon sëñ Abdou Doucouré yokk ko ndax defal na la loo xam ne tey lu jafe la fa tabaarakallaaw te yombul ci temps ci jamono bi ñu toll kon tey moom la ñu moom la ñuy jox kàddu incha allah ginnaaw bi ñu joxe Adja Kiya mu nuyu ko ziyaara ko tatagal ko fa tabaarakallaahu mu waxtaan ak yéen tuuti sëñ Babacar si ndax xam nañ ne amul jot macha allah looloo tax sax waroon nañ fi jàngaat beneen kaamil mais dama mës a dégg ci sama sëriñ sëñ Issa Touré di wax ni benn kaamil bu ko yàlla nangoo ëpp na néewi jullit yi te li ñaanal tey Serigne Babacar ci ay kaamil kenn xamul lu mu toll kon kër gu ñu dugg rek mën nañ fa jàng benn kaamil fa tabaarakala bu ñu jàngee benn kaamil yeneen kër jàng ay kaamil yeneen kër jàng kaamil yeneen kër jàng kaamil bu ñu ko dajalee dina mat ay million yi kaamil ci Serigne Babacar loolu nag martaba bu ko yàlla defal la fa tabaarakallaahu macha allah yàlla na yàlla tas si barkeem yàlla bu fi barke Serigne Babacar Sy jógee kon Adja Kiya yow la ñuy fas yéene jox yow taalibe Serigne Babacar Sy yow l'infatigable Serigne Babacar Sy nga xam ni kër gi ku taxaw ci buntu bi gis Serigne Babacar Sy ku dugg ci kër gi gis Serigne Babacar Sy ku dugg ci salle bi gis Serigne Babacar Sy waaye ku yëg ci kaw escalier yi gis Serigne Babacar Sy taala bismillah musutamay boromam musuta fecc wala reem musuta dok ak mbokam wax lu amul xamul looloo Serigne Babacar bu leen ko faat di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yore xilaafa ki bootoom jabooti Maodo ci bootoom sëriñ Babacar soo ko musaana présenté mam boy sa àndandoo du ko fàtte su la gisee di ko laajte gi gaynde moo rëy ay may sëriñ faju a jogaaw fa mam boy daqu gaaw naf ca sëriñ laaj ko gaaya daan dikke mbay fii ci biir Tiwaawan moo di bàyyi sëriñ Seex Tijaan Si Al Maktuum góor gi ci bi borom rulle borom gaynde jaay bàyyi sëriñ Mansuur borom daara jég dir yëg dara jég dërëm bég li ma sim beeg borom ala daw mi bàyyi sëriñ Si Al Maktuum bàyyi Abdul Aziz Al Amin Al Amir mi ni tono péegunu sëriñ Babacar mooy la borom 25 mars xanaa yëgoo ne ku bëgg sëriñ Babacar mu neex la mu naqari la sa lépp day mars ndax sëriñ Babacar la marabu plus élégant plus intelligent plus pédagogue de tous les marabouts au Sénégal sëriñ Babacar ku la xool dootul xooli keneen ku la daj dootul lambi leneen ku la moy doo ma nekk feneen yaa yoru diine ji góor gee ni toll gi moo ni toll waxuma la dara waaye turam ci boppam rek wallahi boo koy tudd sax da ngay bëri xaalis waxuma xaalis de turu Serigne Babacar Sy rek boo koy tudd da ngay bëri xaalis bu ma nee xaalis nag mooy ay milliards boo nee xaalis ay mille francs ci junneeg yooyu la kon tabaarakallaahu kiyaa dama bëgg nga wax ma sa secret ci Serigne Babacar Sy ndax koo dégg rek ngi naan kiyaa mbub bu Serigne Babacar Sy kiyaa tey nag dama bëgg balaa sëñ Abdou di jël nga wax ma yow yow yow yow Serigne Babacar si yow yow nu mu demé noonu. Mm, man contenté naa tey am ma ni ma wax dama kontaan tey torop torop mm, seen Babacar ni ma def bëri na. su ma ko waxee rongoy de tour ñu ñaan yalla subhanahu wa taala ñaan yépp ñu def bi yalla jël ko ñu jël ko jox yalla yalla jël ko jox yeneen bi yeneen bi jël ko sallallahu alaihi wasallam ko waa kër seen Babacar ak kër diine bi yépp ak euh, mbolen julit yëpp génne aduna julit yëpp ne wax ashhadu an la ilaha ñaan yëpp wàcc kam yëpp yu ñu def yàlla yeneen ko waaw seen Babacar Si sama sëriñ la nit ki du gëm nit ki noonu ñu gis ma gëm nit am na nu mu la defar ba si ndimbal bi ba si bi moo tax moo tax ma fonk ko bugg ko lool la <laughs> sax ñi nga taal ñëpp ba tey macha allah ñu am ay tur ci réew mi léegi naa ko toogal sax boo ko waxul barke Serigne Babacar si sax xelam du dal léegi nag dama bëgg sa cër ci Serigne Babacar si ci barke 25 mars bii nga xam ni lu ne xew na ci feebar bii di corona lëmbe àddina sa cër ci sëriñ Babacar si laa bëgg nga woo Serigne Babacar si corona jóge fi corona na fi jóge ci barke Serigne Babacar si. incha allah ñu ñaan si yàlla ñaanu ko si Serigne Babacar si corona bi jóge allah. naa ko def tam parce que nit yàlla la. kon soxna ku yaa jërëjëf xol bi fees na xol bi tooy na ne dafa kontaan xam nga xol récipient la buy fees di tuuru fa tabaarakallah te moom dafa bëgg Serigne Babacar Sy ba ku fi ñëw rek xam ne dafa bëgg Serigne Babacar Sy kon fa tabaarakallah ma jox sëriñ Abdoul. Aziz Dukuré ak Tidjani bu Cheikh Sidi Aboubacar si radiyallahu taala mu wax leen nag kuñ Serigne Babacar si gars yi ku déglu di nga dégg de. bismillah nañ bëgg way sang bi jaar di way abadan. soo xamul ki may bëgg a way mooy Amin mu Tiwaawan. huwa cheikhun taqiyun. huwa alimun wariun. huwa xibaral najidil mooy amiin mu tiwaawan sëriñ abdu yow lan tiitaroo yow lan leerloo yow lan ndamoo fu nu jëm di la bégge biir tiwaawan man ajjuma ci fajar lan ma tàgg sëriñ abdul aziz gëmuma ko ma sol sama yére dem Tiwaawan gëmuma ko ñu génn sëriñ Abdou Kër sëriñ Babacar war kaa jullee raw du sëriñ Babacar sëriñ Babacar si Mansour moo ko jullee gëmuma ko waaye sëriñ Abdou xam nga kañ la yëg ni ñàkk nan al amin ba première bourde bi tero dudu génn naan jaara ilu na tumha بجاي محمد ما جس جس من الأمين الأمين ممتواوا sadam gi jar naa xalaat sëriñ Abdou man de maa ngi lay jooy ba malaat li nga yoroon de su ko fii ba Tiwaawan jaale naa ko yaakala mbay mu yóbbaale kuy sa tumbay duudu kenn mbay mi doonoon waykatam ci biir Tiwaawan barakallahu fiik <laughs> jërëjëf yal na yàlla fay yiw barki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa xam naa rek asalaamaaleykum wa ñaan yàlla ni ko sëñ Babacar ñaanee yàlla na ko yàlla defee noonu te mooy yàlla nañu yàlla taas ci barke Cheikh Seydou Aboubacar si nuyu sang yi fi nekk yëpp waaye di feddali suñu kóllëre ak ñoom di feddali suñu cofeel ak ñoom di wax ni rek wax dëgg yàlla activité yeeg yëpp dañ koy yëg ñu nit waaye dañuy xam ni rek eh, koor yi nekk Sénégal yëpp benn couleur la ñuy défendre mooy verte jaune rouge te loolu moom mooy moom la jullit yëpp war a demee rawatina nag képp ku bokk ci xadara Cheikh Seydi Ahmada Tijaan ñuy ndokkel sunu jigéenu bopp bi di soxna Kiya Mbuub bu Serigne kër si damay wax rek ni dàkkantal boobu rek mënu ko fay sëñ Babacar maanaam dàkkantalu ñu tudd sa tur tudd tur tur sëñ Babacar rek nit mënu ko ko fay parce que du nit ku nekk la ko yàlla di jagleel sëñ Babacar xusuusiya bi ko yàlla defaloon moo rogalaat ba ci ay soppeem dafa am benn jigéen ma musa wax ni ma dafa dafa dafa daf daf ko gént wax a wax ba yeggal ma ne ko ah sëñ Babacar de kenn du ko sopp ci hasard mooy tànn ay soppeem moom moo ko waxoon Serigne Cheikh moo ko waxoon ne xanaa yëgoo ni gox boo dem kër goo dem famille boo dem askan woo dem ña fa gën yàlla jox na ma leen man Babacar si mu ne ko boo gisee kuréel sax ñuy dox boo leen xoolee samay soppe mën nga leen a ràññee ca biir kuréel ga ndax am na am na lu leen yàlla di jagleel lu muy jëlee ci man di muy dem ci ñoom mu nekkoon nitu yàlla boo xam ni damay wax toujours ni fi mu wuutee ak nitu yàlla yi mooy nitu yàlla yi seen wilaya leen conditionné mais sëñ Babacar moo yilif wilayaam maanaam nitu yàlla yi seen wilaya moo leen yilif mais sëñ Babacar moom moo yilifoon wilayaam moo tax léegi léeg ngay dégg nitu yàlla wax dara du tombe nam ko waxee fekk ba mu koy wax wilaya ga nekku fa mais sëñ kër moom dafa yilifoon wilaayam ba lu muy wax da ci coordonné ak wilaayam mag ñi nettali nañ ni daan na toog di wax ba mu yàgg mu ni dënn noppi kenn dootu ko dégg kenn dootu ko dégg kenn dootu ko dégg ba mu yàgg mu ni un un daal di continuer ñu ni bu nee dënd rek parce que mi ngi discuter ak wilaaya gi waaye bu nee un un wilaaya gi dellu si na mu continuer mbaa mu jug fatu léegi léegi nag nit di wax ba wilaayaam dem te du ko yëg léegi léeg nit di wax wilaayaam ne fa te du ko yëg mais sëñ Babacar Si dafa bokk ci nitu yàlla yi nga xam ni yàlla xam na ni nitu yàlla la nit ñi xam ni nitu yàlla la moom mu xam ni nitu yàlla la te loolu benn grade la ci grade nitu yàlla yi parce que am na koo xam ni ak nitu yàlla am moom dong nga ko xam ak yàlla mais nit ñi xamuñu ko am koo xam ni yàlla rek ko ko moom xamu ko nit ñi xamuñu ko am koo xam ni yàlla xam na ko nit ñi xam nañ ko mais moom xamu ko am koo xam ni nit ñi xam nañ ko moom mu xam ko mais yàlla yëgu ko moy ki wote te dara to ki wote te dara ne wufa moy li Cheikh Hadj mal don wax ni wa kam baatinin yawmal qiyaamati batil ma do neena beuri na ko gis muy wote te lamuy wote diko tuddé batin tuddee baatin bu ëllëgee yawmal qiyaam nga xamni batil la ne seigne babakar nak jagle bi ko yàlla defal mom Cheikh Al Khalifa seigne wax na sank lu am sol lu jara baye xel dama wax toujours man ni xam turu seigne babakar doyna na liggéeyu ndey doy ci liggéeyu nday nga xam turu seigne babakar ma nga tudd Babacar rek dem de nga xam turu sëriñ Babacar si xam nga Babacar Babacar boo ko jëlee ak xalifa Ababacar si boo ko déchiffré li mu Allahu samiu la lay jox mag ñi am na luñ ciy liggéey bu ñu soxlaa coordonné ak seen borom direct te du am intermédiaire turu sëñ Babacar woowu la ñuy jël Ababacar ak xalifa Ababacar la ñuy boole liggéey ko lim biñ koy liggéey bu ñuy fëgg yàlla muy ubbi yàlla ko ko jagleel. shaar ba daf ko wax ni ko bi bi Cheikh Alhaaj Malick faatoo ñi bëggoon a nekk xalifa Maodo bari nanu ndax booba Maodo ay Maodo la fi bàyyi ñoo xam ni Maodo ni moom lañ mu ne waaye booba xilaafa wutiwu leen yow kër Si la xilaafa wut si ndax am na koo xam ni mooy bëgg a donn am koo xam ni dañuy bëgg mu donn ñu mu ni nag sëñ Babacar yow xëccoo woo xilaafa mais xilaafa boo xëccu jëm ci yow Cheikh Omarul Fouti moo wax ni maa présenté ca xadratul ilahiya Babacar si ngir mu wuutu Maodo ñu laaj ko kañ nga ko présenté muni boba booba Maodo ngi dund ndax dundaat na juróom-ñaari at te mënta dogal ci tariqa bi lu Babacar si àndul nak boba Babacar a yor siru tariqa bi Maodo yor mbubbu tariqa bi te ñoo ngi dund ñoom ñaar waaye Cheikh Alhaaji Malick mënul dogal ci tariqa bi booba jamono lu sëñ Babacar dogalul ndax booba sirru xilaafa fekk na mag ñi daje ba teg ko ci loxol sëñ Babacar si moo tax mu wax waxam bu rëy boobu moom sëñ Babacar ni diggante bi ma wuutu Maodo dafa gàtt ñu ne ko lu tax mu ni laataa muy faatu fekkoon na ma donn ko mu ni moo tax sama liggéey ak moom yàggul bi mu faatoo diir bu gàtt rek laa yëg ni li Maodo bëggoon defal naa ko ko moo tax waykat bi ni fu baay fu maam as defoon benn bàyyi mbay fukkal na ko mu ni diir bu gàtt rek ma yëg ni sama liggéey ak Maodo jeex na mu ni waaye liggéey ba fa desoon Cheikhouna Tidiane Chérif moo ma ko santoon ndax demoon naa ci moom ba àndatuma ak sama sago ndax nangu woon na moom bind na ko moom sëñ Babacar ni cheikh ñu la dee wut loo dof jàpp ma maay sab dof mu ni loo looloo tax li ko cheikh defal moom sëñ Babacar ci wilaayam moom Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ci tariqa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane defalu ko beneen nitu yàlla ci tariqa bi loolu loolu fawu nit ñi nangu ko nangul nangul lëg gàtt geenam ak mën a dawam teewul yow nga nekk lëg teewul yow nga nekk nit mais nangul ku nekk nangul ko cëram lii cëru sëñ Babacar Si la muni nak bi pour mu wuutu bi mu wouto cheikh alhaaji malik dir bu gàtt la mu wouto cheikh muni nak nag ak cheikhou na tidiane ci tariqa bi yitte bim ci def mom seigne babakar ak gëm gi mu gëm cheikh taxna tamit liggéey ba yagul mu matal ko muni bim ko matale nak lako yont yàlla muhammad tek loxo ci mbag ni ko Babacar jaam yi yaa ma ci doy muni lolo taxone mu nek mom seigne babakar di khalifatullah fil ard motax bi muy dund ben khalifa am moy cheikh seydi bakkar si na khilafa moko woutal bopam boppam atathul xilaafatu munqaadatan إليه وتجرر أزيالها فلم تك تقبل إلا له ولم يك يقبل إلا لها لو رامها غيرها في الورى لزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أقبارها بأن ربك أو حالها بكنن ودون خلافة كدول سيد بابكر كروك لا أدوني توكي نحن خلافة مو دانيال بوبام باتي كان مو سيد بابكر منيكو سما ديجي جناو جي بوتي وارول كنن دوتي ci war yow képp yaa ci mën a war looloo tax sëñ kër toogoon Tiwaawan wax ni Sénégal ba mu daj bépp allahuma bu fi nit di rëkk dëkk bala ñu koy yóbbul sunu borom dina jaar Tiwaawan ci man Babacar ma vérifier ko ba xam war naa dem bu waree dem ma bàyyi mu dem bu warta dem ma rof ci sama suuf si jaada daal ni mbir yëpp nag fii lay doxee loolu mooy photom bële mu samp benn baaraam bi mooy mbir yëpp nag fii lay doxe moo tax lu waay mën a yootu ak loo mën a lonk bu la neexee ne ci ruq di ko lijjanti waaye boo bëggee mu sotti rek daa ko wékk Babacar si Seyd Cheikh Ahmed si nee na dafa aay ci soppeem moom sëñ Babacar nee na boo ko bëggee bu la neexee nekkal kirikoro soko wowe fala lay fek mu ni sëñ Babacar moom rek ka mel non bayni wa baynaka darih al amjadi ahdun yasir ala tariq tajaddudi fala in aitu fa kal xayaalu tazurruni wala in ataytu nak fa raghbati fi mashhadi yawmi sop seigne babakar so beugé bëggee ji tiwawon am ngant muno dem seigne Cheikh ne togal sa néeg si fek la fa ndax kenn ku nek dip sopem tok nga ci ruq bo jaxla yow kep ba mu ko woowee dala faa fekk kookoo ay ci ay soppeem yàlla nañu yàlla taas ci barkeem bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su nu ko toppee day xaw a yaatu te jamono laajatu ko yàlla na yàlla barkeel li ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu oustaz bég nañ yàlla na yàlla bég ñun ndokkeel soxna kii a ñaanal ko yàlla moo ñu boole ak sëñ kër si ndax ñoo ngi xamante réew du sëñ Babacar si yàlla moo ñu boole ak sëñ Babacar si ndax ñoo ngi xamante réew du sëñ Babacar si lii ñu 15 15 yi ñu doon jàng sànq Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo wax moo ma wax ci làmmiñu boppam ni ma ku ko jàng ci réew du sëñ Babacar moo di ziyaaram loo ko wax mu dégg ko te loo ko ñaan yàlla def ko. looloo tax bi ñu xëyee di ñëw ma ne xale yi nañ jàdd ci sëñ Babacar ñu wax ko sunuy aajoog aajo yi ñu jëm door a départ ñëw loolu moo ñu xaw a naajal waaye kon danañu gën a teel a ñëw yal yàlla barkeel yàlla nangu Seydina Muhammad bég nañu ci daje bi yal na yàlla bég kontaan nañu ci daje bi yal na yàlla kontaan yàlla bu daje bi nekk suñ mujj daje yal nañ ko yàlla gërëmal li sëñ Babacar wax ni ab soppeem heure booba la koy xam bu ñu fa yeggee yal nañ ko xam ndax wax na ni képp ku bëgg man Babacar si bala ngaa xam njariñu bëgg ma dañ laa def ci biir bàmmeel ba nga am fa ñetti fan mu ni boo fa amee ñetti fan di nga xam sopp sëñ Babacar si ban doole la am mu ni waaye ku ma noonu ba am ñetti fan ci bàmmeel di nga bëgg ma doon sa sëriñ te doon sa sëriñ bu yàlla dekkalee jaam na boo xam da koy décorer benn jaamam nga xalaat yonti yàlla Muhammad mu ni parce que yonent bi mooy moom moom mooy ràmm jaam yàlla du jox caq yonent bee joxe ay caq mooy décorer waate ndax lépp moom moo yàlla bind nga xalaat Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu ni déedéet bi sallallahu alayhi wa dina ni yàlla liggéey bi kat yaa ma waxoon ni ma nañ ko cheikh ko yeesal Maodo ni amara imamana bi tanazulin li ifadati al axlaaqi bil wirdil jëli looloo tax cheikh ko yeesal nga yaakaar ne cheikh alhaaji Malick la mu ni déedéet Cheikh El Hadj bu dekkee digganteem ak boromam li mu bàkk yont yàlla Muhammad jaamu ko sunu borom doy na ko sëkk kado moo tax yàlla di ko bàyyeek parasolam bi ba ëllëg yowmal qiyaam bu yont yàlla Muhammad yoree liwaawul hamd Maodo yor parasolam ñu xàmme Moustapha xàmme Cheikh El Hadj Malick kon ku yàllay jox caq bi mu ni yàlla dina bàyyi ba jaam ñi ni tirim ku ne tiitaroo sa soppee ba pare mu ni man seen borom am naa jaam bu ma mësta mooy tey moom laay décorer mu ni bu keroogee kenn jug taxaw mooy Cheikh Seydi Aboubacar Sy yàlla nañu yàlla taas ci barkeem bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi jéggalu ci kaddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mais lii ku mu doyul dara du la doy nit dem na Tiwaawan te déggu fa lii yàlla di wommat Tiwaawan ba indil ñu ko nii kër ki yaa ay daram bub ci Aline cité Aline Sow doy na sant yàlla kon Moulay Abdoul Aziz na yàlla dolli la mucc dolli la kaaraange yaatal sa dënn defal la fasaaxa defal euh, tabaarakallahu euh, ñaanal la yàlla fa alxaaji Ibou Sakho tolloon yàlla na nga ko wees fa Serigne Habib Sarr tolloon yàlla na nga ko wees yàlla na nga dund 111 ans sans ordonnance yéen tabaarakallahu farata la képp koo xam ni day nooye xadara bi di nooye Tiwaawan mu leen di ñaanal tey bëri na ñu nekk tiijaan sa kàddu tax na ñu nekk tiijaan bëri na ñu jàpp tarixa bi sa kàddu tax na ñu jàpp tarixa bi kon yéen dafa nekk farata. ku julli ñaanal leen yàlla kon yàlla na yàlla dol sutura yàlla na yàlla faj aajo yi yéen a ko àndoon seen télé Dak Médina fii ci kër Adja Kia ci seen émission ëtt kër Mame Maodo ndax li yëpp ba tey ba tey ci ëtt kër Mame Maodo la fa tabaarakallaahu ànd koog suñu technicien yi xarañ yi vraiment Adja Kia mu ngi gërëm mboolem télévision boo xam ne rek ñëw na tey ci kër gi ci bis bii nga xam ni moom lañ jagleel Serigne Babacar Sy yàlla na ngeen fa jóge rek seen télé yi tàkk ni tàkk ba faw بغنا بغنا تبارك الله سيو تلي في نيب يالا من نكو تي بارك سيرن بابا كيرسي يالا كو يالا ديف كون جاي وما ذلك على الله بعزي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي nga defee ñu sant yàlla bu baax waaye di ndokkeel jaamu yàlla yi fi teew rawatina macha allah taala sunu soppe bi toog sunu wet di Abdoul Aziz Sy Doucouré wax dëgg yàlla ku ñëw Tiwaawan fekk fa xadara ba macha allah da ngay kontaan da ngay ci ni muy taxawoo xale yi wax dëgg yàlla jamono ji mu toog nii perte na temps bu bare ndax fi mu toog boo demee fit baa ngi tëf tëfi ndax lañ koy tudd ci Tiwaawan bare ñoom amuñu jot ku nu may macha allah benn minute rek macha allah ay milliards la ci ñoom kon macha allah taala xam naa dund guddal dañuy gàttar rek bu ko defee mu ñëw dellu balaa ñuy dudi tisbaar macha allah mu teg àgg ca xadara ja waaye comme nin koy waxee sunu toogaay fii day nekk toogaayu Chérif Maki Haydara xafidahu llahu wa nasara wax dëgg yàlla xam naa ne mu nekk loolu soppe macha allah soxna Kiya Mbuub bu sëñ Babacar ndax Chérif nit ku baax rek la bëgg mm-hmm. day xencu nit ñu baax ñi mm-hmm. te it macha allah yéen ñaar di ngeen jëlloo sorianto wu leen mm-hmm. li naan macha allah montre yu baax yi ñëw bokk heure waaye sëñ Babacar Mbuub bu nu gërëmee te mënu ko macha allah day nuru soxor wala ki ñaan moom mi nu fortay ji ci mbedd mi ba indi ñuy ci biir macha allah soxna Kiya Mbuub mi bu sëñ Babacar ni oustaz dama bëgg nga fasante ko mu kóllëre waaye nga xamante ak moom macha allah taala loo ci ñaan boo demee macha allahu taala mu defal la ko mm-hmm. na nga fi dellu si waat mu defal la ñaan macha allah daara ji yàlla jëf barke xale yi am fatxu lu nu jàng macha allah mu toog seen dënn waaye li ngeen barkeelu sëñ Babacar li moo ni toll moom li ngay wax toujours ustaan laan mm-hmm. il est le maradout de tous les dangers mm-hmm. sëñ Babacar si moom macha allahu taala ay kiraamam buñ la ci wax benn rek na ngay dar sa gémmiñ maa ngi koy wax sànq ca kaamil ba naan en 1927 ba bàyyam ba dëddoo magu Tiwaawan wani macha allah toog ni ñoom ñoo koy donn mm-hmm. moom ca wilaaya ga ak ca mat ga mm-hmm. mu nu tekk moom xam na ni moom macha allah kenn du nekk mm-hmm. xalifa sëñ sëñ Laaji Maalik ku dul moom mu leen bu nu jullee fajar yéen ñëpp soxla naa leen ci pénc mi Abdoul Aziz Dukkare xam na li may wax ba nu sëlmalee fajar mag ñëpp ni ko macha yaa nu convoqué woon ñu ngi nii taxaw mu ni ana siège bi alaaji maa ngi daan toog mu ni mi ngi ñu indil ma ko ci ëtt bi ana kaala ga mu ngi mu ni indil leen ma kaala gi ana yar gi ñu jox ko mu ni ana abu muhammadul mansour mu ni maa ngi mun ko ëpp nga ci ana abdul aziz dabbaax mu ni ko maa ngi ni ñun ko ëpp nga ci mu ni ana abib ci atul alaaji malik mu ni ko maa ngi ni ko kaay toog sëñ Habib ñëw toog moo sëñ Habib dañ ko dëj ci xilaaf gi amaa nga ci toog ndax xalifa kenn mënu ci toog ñaar yéen sëñ abdul ca chaise boobu dañ ko ca dëj macha allah mu toog ci xilaafa yi kon du ci toogaat mhm. loolu tax mu jiitu ay magam te njëkk naa wax mag ni mhm. toog leen mhm. bi bi bi indee chaise bi uh-huh. dafa ni mag ñi bëggoon donn Maodo mu ne leen ku ci ñemee toog ci chaise bi na jël yat wee kaala gi toog uh-huh. ñoom ñëpp ñuy xoolante mu ni maam Habib kaay toog mu toog kaala wu teg tengaade bi téye yat bi mu ni yéen ñi ci des ku ci toogoon balaa jant soñu rob la wallahi al azim wallahi gis nga kon Abdou ni ko waxee kon loolu waxu dëgg <laughs> kon loolu dafa bokk ci kiraamaam yi wallaahi wallaahi beneen bi nettali naa ko fa mhm. nee naa ne yo yónni na sëñ ma Maniru saar Ndar mhm, mhm. ca jaarom bëreeroon ba mu fa fàtte woon mu fàtte fa jaaroo ba eh, wax sëñ Maniru Sarr dama Ndar jëlale ma sama jaaro ba ma fàtte woon sëñ Maniru Sarr dem Ndar waaye bu mu dee bay wàcc pont Ndar bi rek fekk fa benn waaye bu ñuy wax dofu sëñ baabakar mu ne ko ah, yow de dégg naa yow dofu sëñ Babacar Mhm. man de am na loo xam ne suñ Babacar moo ko moom nga ne ko bul waxtu loolu waaye mhm. mu génn jaar yi ne ko kii di jaar suñ Babacar moom ko jël si loo dof bi bëgg xëcc si moom ñu koy xëccee ñooñaa mu dugg ca ndox ma <laughs> sëñ Maniour Sarr am ñetti fan ndar jaaxle mhm. naan nan laay def macha allah ba ne wax sëñ bi jaar ba dafa dugg ci ndox mi <laughs> waaye mu ne ah naa dem wax rek su ma dee dóor dóor ma su ma dee xas-xas ma naa dem wax waxali xew rek waaye sëñ Maniour Sarr ne bi ma ñëwee Tiwaawan fekk salo fees dell sëñ Babacar di ñaanal doomu aadama yi ak di leen waaye ma toog tuuti gis que macha allah sëñ Babacar ma ngay fooce jaaro ba di wëndeel jaaro ji man sama fit ba dem na maa ngi naan jaaro bi moom la wala du moom sëñ Babacar ni que Muniru Sarr bàyyi li ngay xalaat ku sa taaliba du réer yow ma xiyaam sa jaaro nu lay réeree kon macha wa ma zalik bi aziz waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ayo sëñ aan shaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غافق إذا وقب ومن شر نفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما آمين ونورا وهدى ورحمة آمين اللهم ذكرني منه ما نسيت وعتمة منه ما جئلت وارزقني تلاوة آت ليلا وأطراف النهار آمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين اللهم أصلح لي دينا الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معيشا وأصلح لي الحياه التي فيها معيدا واجعل لي حياة زيادا لي في كل خير واجعل الموت رحمة من كل شر اللهم اجعل خير عمرك أخيرنا وخير عبادنا وخير يا أيمن في يوم القيامة اللهم إني أسألك عيشة هي ومئة وسيئة ومرضة عن غير محزن ولا فحيد اللهم إني أسألك الخير المصائب وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الصواب وخير حياء وخير مياء وثبت وسق ميزاننا وحق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتي واغفر خطائتنا وأسألك العلوم من الجنة اللهم إني أسألك مجيبة رحمة ورحمة ومغفرة وسلامة من كل اسم ورحمة من كل بر والفوز بالجنة ونجأت من النار اللهم أحسن عاقبنا بالأمور كلها وأجنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من غشتك ما تحالنا به بيتا وبين معتك ومن طاعتك ومن تبلغنا بها جنتك وما يأخذ ما تهين بها علينا مصيبة الدنيا وما عينة باسم وأبصرنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل ليتنا منا واجعل صعودنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادنا ولا تجعل مصيبتنا في الدين في الدين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكرم منا ولا مبغرة علما ولا تصرال علينا من الله يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع تدعونا وذنبا إلى غفرت ولا هما إلى فرجته ولا هما إلى فرجته ولا هما إلى فرجته ولا دينا إلى قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الله يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهدي لسبل المقام صدقت على ما قلت في عون ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحم إلهي فجعلها من أهل غربتي وأهل اتباع السنة في التراحم نعض عليها بنواجز مثل ما به قال في لسان مرات الهاشمي نعوذ بالله من شر كفار ومن شر نصار من شر سلات وزير وجل الصمازي حق فرمان عين والشياطين والظالم ومنافق وزي عسل وسقي حرام نجني من النصارى وقه طريق يا الله يا حي يا من قال أدعوني إني دعوتك فقز بيدي يا جاعل الحال بين الكلام الكاف والنون يا جاعل الحال بين الكاف والنون اجعل حالنا بين الكاف والنون يا جاعل الحال بين الكاف والنون اجعل حالنا بين الكاف والنون اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووهبتنا بإجابتك وقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد لست تخلف الميعاد يسر لنا المراد بحرمتك والنور وبركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاطب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على أموالنا وسلام على أولادنا وسلام على أشياخنا وسلام على صغيرنا وسلام على كبيرنا وسلام على أزواجنا وسلام على ذريتنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا جميع الحاجات وتحفظنا من جميع السيئات وترفع عنا الدرجات وتبلغنا بأعز القيات من جميع الخيرات في الحياه اللهم يا رب يا الله يا قادم يا حنان يا منان يا مجيب يا اكرم اكرم يا هو يا من لا يملك إجابة الداعي كثرة سنوبه ولا سوء أخلاقه يا من قلت عدوني أستجب لكم فها نحن ندعوك بوجهك الكريم ونبيك العظيم ممتثلا أمرك موقنا بإجابتك أن تكفينا ما أهمنا ومن أمورنا وأن تدفعنا جميع ما نقاه من شرور دنيانا وأن تؤتينا جميع ما نهي من الخيرات وتفترنا أبواب الأموال يا خير راسخ يا رب العالمين بحق لا إله إلا محمد لا إله إلا الله لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اغفر لنا وهب لنا إجابة وزدنا يا ربنا إيمانا يقينا كما تولي الحمر وصحة البدن رب لا تسل إيماننا بدهائك رب لا تسل إيماننا بدهائك رب لا تسل إيماننا بدهائك الحمد لله المجيب الدعوات الحمد لله منزل البركات اللهم يا مجيب الدعوات منزل البركات أن تجيب دعوتنا كلها وتنزل علينا جميع البركات والمهمات والخيرات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 yàlla yàggal fi soxna fi lool. di ko joñante ba mu toj moo gën.